alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquran mu ne bind na ca téeréem yéweyoon lu mel ne zabuur gannaaw boo xamee ne itam bind na ci alquran maanaam andi na ci alquran andi ca zabuur muy téere yi jiitu woon la fa yàlla bind moo di ne suufam si ñi koy mujje te di ko donn moo di jaamam yu baax ñu baax ni ñoo koy mujje mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala moom la soob mu bind suuf indi wàcce fi aadama ak xawaa muy sunu ñaari maam yooyu nga xam ne ñun ñépp foofa la ñuy jàll la taxoon mu indi leen fa it mooy dundal suuf yi ak baaxal ko ak rafetal ko koom yi nekk ci suuf si yépp mu tàggatal leen ko ñu mën koo jariñoo ci lu nëbbu ak ci lu feeñ waaye sunu borom tabaraka wa taala yonentam yooyee mu yebal mu boole leen ak benn méthode boo xam ne bu mat sëkk la ngir bu ñuy dund ci kaw suuf si suuf si mu leen tàggatal ñi ci jëriñu mu wàcceel leen méthode boo xam ne ci diine la nekk mu mën leen a defar ñoom doomu aadama ci seen bopp mu nekk manhaj boo xam ne mi ngi tegu ci kaw gëm yàlla ak jëf-jëf ju baax ak dénkante dëgg ak dénkante muñ méthode boobu kon taxul woon rek mu jóg mooy defar suuf ak xéewal yi ba mën a xéewlu waaye la ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg mooy tabax doomu aadama ba mu nite yar ko yarub diine boo xam ne dana ko sellal dana ko baaxal itam ba du doon ku ëpp waaye du doon itam nag ku yées su loola amee ci la nit kooku bi mën a nekk ci kaw suuf taxawal li ñu tudde maandute taxawal li ñuy tudde ak gore muy liberté taxawal li ñuy tudde ak yamale lépp loo xam ne lu war a yem la ci kaw suuf loolu lépp ngir doomu aadama mën a tabaxu mën a yaru mën a doon koo xam ne mat gi nga xam ne moom la ko sunu borom tabaraka wa taala may mu mën a dem ba àgg koo fa ndax su loolu amul doomu aadama jooju mën naa wëlbatikuwaat ba mel ne mala ak luy xéewalam bari bari lu alalam bari bari bari yar boobu yi nga xam ne mooy defar biiram moo koy defar ci wàllu diine ba bakkan ba sell xol ba nekk xol bu baax yar boobu su amut alal ju bari ja nekk ci loxoom daf koy gën a wëlbatik mu gën a nuru mala waaye duutu nuru ci doomu aadama kon mbokki jullit yi buñ xoolee ci kaw suuf ak taarix ak li fi jaar lépp gis nan ne léeg-léeg suuf dem ba mu yàgg ñii not ci kaw suuf ñu dëng rek la ñuy doon léeg-léeg dem ba ñii not ci kaw suuf sax ay yéefar la ñuy doon duñ nekk dañuy sori lool diine donte mën nañoo fexe ba not suuf si defar ko bu mën faa dund ak dund moo xam ne dund bu neex lay doon ci wàllu àdduna waaye mbir la moo xam ne du mbir mu yàgg sunu borom tabaraka wa taala dafa bokk ci ay sunan ay tëraliinam yim tër te du soppi ko mukk moo di ne ndono la wér dëgg dëgg dëgg ndono la wér dëgg dëgg dëgg ñu war ko doon suuf ña koy def mooy jaami sunu borom tabaraka wa taala yu baax yi ñi nga xam ne daf leen a tànn ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo dajale ngëm yàlla bu dëggu ak jëf joo xam ne ju baax la mooy ñi dajale mën a jariñoo wàllu matière boobu yi nañ ko junje woon ngir mu mën a doon waruwaay boo xam ne dañ koy baaxale seen ëllëg ndax kat xol bi fu mu yaroo ba baax ba tegu ci yoon wi mu war a tegu ànd ak topp yàlla gi nam jaadoo ak ragal yàlla ga ak gëm ko nam jaadoo xeet wu mu mën a wàcc wu mu mën a doon woowu xeet suñu borom tabaraka wa taala day daal di teg ci loxoom ndonal suuf ak lépp loo xam ne la ci aju ci biir loolu ñu gis ni ci histoire am nañ jamono yu yàgg yoo xam ne nangami seekal la jullit yi ñoo notoon ci kaw suuf ñoo donnoon suuf ngir seenu njub ak seenu jëfandikoo alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawal seen état boo xam ne la ko tàmbalee ca xulafa rashidun ba keroog état islamique ba di daanu seen état boo xam ne mayoon na leen ñu jiite àdduna mayoon na leen ñu jiite doom aadama ci kaw suuf di ko gouverner itam di ko doxal ci wàllu siyaasa ci anam goo xam ne maandute dafa tasaaroo woon lool waaye loola la ko mayoon jullit yi dafa am ay melokaan yoo xam ne bañ leen yaree ci lislaam melokaan yooyee dañoo mujjoon meloo woo ko loolu moo tax ñu yeeyoo lool melokaan yooyu bokk na ca moo di jullit yi dañoo doon boroom ab téere boo xam ne téere bu mat la mujj ci téere yi làmboo lépp loo xam ne lu mos a wàcc te baax la ba yokk ca loo xam ne lu amul woon la nekk itam sharia boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala mi bind doomu aadama xam la baax ci moom moo ko wàcce ci ñoom ñi jël ko gëm ko di ko jëfandikoo ba mu dox seen digganteeg ñuy tegal seen bopp seen luwaay bopp wala ñuy làmbatu ndeyjoor ak càmmoñ wala ñuy jëggaani wala ñuy xaaraani ay luwaa yoo xam ne yeneeni xeet ñoo ko sàkk nattale ko seen bopp mu mel ne mbubb moo xam ne ca ñoom la yem ñu jële ko ci ñoom di ko jiima sol te fekk capacité jullit dafa ëpp loola lay misaalam sorewut ak mag moo xam ne mag mu mat sëkk sëkk la ci wàllu yaram nga fekk mbubb moo xam ne mbubbum liir la nga jël ko fas ko ko yéene solal luwaa yi nga xam ne doomu aadama yi gëmut yàlla dañ ko xottil seen bopp sol ku muy mbubb jullit bay ñëw di ko jéem a sol noonu la mel ci moom moom mbubb ma mu war a sol ëpp na moomu kon loola mooy la jiitu woon téere boobu doon loo xam ne ak leeru kese la goo xam ne dafa mel ni nit ñi bu ñuy dox ci lëndëm mooy làmp bi ñu yor ñoom bay xam kuñ jaar noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala misaale bi mu waxee ne xoolal koo xam ne dafa mel ne ku dee ñu dundalaat ko may ko ak leer goo xam ne ca lay doxe fu muy teg tànkam ku nekk xam na fu mu doon ndax kooku bokk naa koo xam ne ci lëndam la nekk di làmbatu kenn ku nekk xam na ne ñooñu bokkuñu la chaque ne luwaa yi doomu aadama yi tëral seen bopp moo ko lëndam ñooy la ciy firnde ju mag rek mooy lu ñu samp tey bu ëllëgee ñu sempi ko indiwaat leneen bokk na ci melokaani jullit yooya moo dina jullit yu njëkk ya kenn nangu ci woon a méngoo dara ñu jox la dara nga nangu koo yore lu dul gannaaw boo xam ne dañ laa yar ci wàllu jikko yar la ci wàllu pas-pas yar la ci wàllu diine ba nga xam li dagan ci yow ak li daganut ci yow moo taxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan yar saxaaba yi di leen sellal di leen xamal àdduna mooy lan akub doyadeem di leen soññ ci dëddu àdduna moomu di leen yar ci nangoo sàmm di leen yar ci am lu ñuy bañ di leen yar ci am kóolute akub wóor di leen yar ci maandu di leen yar ci sax jariñ keneen gënal leen jariñ seen bopp léeg-léeg di leen yar sax ci ñàkk xër ci bëgg ku la jiital bëgg njiit loolu da leen daan yar ci ñu di ko wattandiku lool moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan wax ne waat naa ci yàlla daan giñ ne mbir mii muy liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyu jiite ci lislaam nee na du ma ko jox ku koy laaj ku ma ko laaj du ma la ko jox du ma ko jox itam koo xam ne daf caa xër dafa ñëw di wax ne nañ ma jox suñ ma joxee danaa def nangam suñ ma joxee danaa def nee na kooku du ma ko ko jox loolu moo tax Abu Dar alxifaari radiallahu taala anhu mu doon koo xam ne ci saxaaba yu màgg yi ci la bokk ndax njiit da dul ku jóg rek ku nekk man ko njiit du ko jóg ku ne man ko njiit xam-xamu kese doyu ci njiit xam jamono kese doyu ci waaye bu fekkee njiitul lislaam la xam-xam ba war na faa nekk xam jamono war na faa nekk waaye ak maandute itam daf faa war a nekk akuk ragal yàlla xam-xam ba mën na faa ne ak maandu ga ak ragal yàlla ga ak yépp waaye kooku mënta jiite ndax xamul jamono mën naa xam jamono waaye ba tey am na lu mën a nekk ci moom ci xeeti sentiment yoo xam ne dana tax du mën a jiite ndax ku ñëw laaj ko ne ko damaa soxla dara mu jël jox ko te mbir ma du noonu nag bu ñu la xasee jox responsabilité bi looy joxe lu ne day am fu mu dugg moo tax Abu Dar bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw yow de yaa ngi joxe rek ay ay place xanaa doo ma ci jox mu ne ko mu jël loxoom tàpp ko ci mbaggam ne ko yaa Aba Dar innaka rajulun daif mu ne ko yow Abu Dar yow da ngaa da ngaa doyee di da ngaa doyee di te kenn ku ne xam na ne Abu Dar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jubluwul ne dafa doyee di ci pas-pasam wala ci jikkoom wala ci ab xam-xamam bal moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel ne asamaan tiimul suuf itam yanuwul ku gën a dëggu abadar kooku la seedeel loolu ba noppi ne ko innaka rajulun daif kon nga xam ne responsabilité jiite aw xeet jiite aw askan seen am am ak seen lépp ñu teg ko ci sa loxo nga yore ko loola du lu ndaw xam-xamu kese ak ragal yàlla kese duyu ci yooyu nag dañ faa war a nekk ba noppi am nag yeneen yu fa nekk mooy ak dëgër nag ak xam ne li nekk ci sa loxo li muy bari bari bari moomoo ci dara dañ koo jaarale ci yow luñ dugg fi béréb lu nekk lan dugg ndax njariñul ña la fa tegoon moo tax mu dugg foofu luy génn fi béréb it na fa génn ndax njariñul ña la fa tegoon moo ca nekk moo tax mu génn fa lu dul loolu dara du yëngu kon Abu Dar ak doyadeem foofa la féete yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ci moom melokaan woo xam ne wóor na ko ne tey bu ñu nekkoon magasin yu islaam a ngi nii kaay yore ko comme ni ñu joxe woon trésor Abu Hurayra suñ ko joxe woon noonu Abu Dar ku dikk laaj ko dana jël jox nga dem ak noo mën a mel ak noo dikkee loolu moo tax mu ne ko innaka rajulun daif kon ñu xam ne tànn mbir moomu doonul loo xam ne lu lu woyof la jullit yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon yaroon na leen yar boobu dañ daan jàng fuñ toll waxi suñu borom tabaraka wa taala tilka daarul axira fi nga xam ne mooy àllaaxira najcaluha lilladina la yuriduuna uluwan fi l ardi wala fasaada ñi bëgg seen ëllëg baax maanaam ñi may jox ëllëg ñi may jox ajjana ëllëg nee na mooy ñi nga xam ne nekkuñu ci kaw suuf di rëy rëy jàpp ne ñëw gën ñëpp nekkuñu woon ci kaw suuf itam di yàq mu ne wala aqibatu lil muttaqin mujj nag ñi ragal yàlla ñooy mujjee suuf loolu moo tax ñoom daawuñ jiiroo di njëkkante loo xam ne place la waxuma la nag ñuy jël seen bopp ne def leen ma nàngam di wër di wax ne maa mel nii maa mel nii defal leen ma nii defal leen ma nii ba jaral di ca def loo xam ne yu bare bari la ci xeeti joxe ay xeeti digge yoo xam ne yu dul mën a sotti la yooyu doonul woon seen mbir lépp solo ci loolu lépp moo di ñoom nanguwuñu woon a teggi seen tànk fenn foo xam ne dafay wàññi dara ci seen pas-pas wala ci seen diine adduna ak li ci biiram jaralu leen ko woon waxuma la place boo xam ne dañ leen koy jox xamoon nañ ne responsabilité yi ñu leen di yan yépp ab yan la waaye du firaanke yoo xam ne bi ñuy joxe la moo tax xamoon nañ ne loolu kenn ku ci ne luñ la jox ci responsabilité ëllëg da nga taxaw ci sa kanam borom ñi réglente ko ak yow ba xam lii ñu la joxoon lan nga ca def borom bi tabaraka wa taala wax nañ huwa alladi jaalakum xalaa'ifa al ard wa rafaa baadakum fawqa baadin darajaat moom moo leen def ci kaw suuf ngeen doon ñoo xam ne ñu wuute ngeen ci ay man-man ak i xam-xam ak i pexe wuute googu am fexe ba lenn ci seen kaw itam lenn ci yéen itam féete kaw leneen ci yéen waaye mu ne li yabluwakum fi ma aataakum su ko defee lam ci jublu mooy nattu leen kenn ku nekk lañ ko jox ka nga xam ne man-manam àggut ci lu kawe. ñu jox ko lu tuuti loola responsabilité la ci moom bu mu ko xeet li yëpp loo ko fii ma ataakum dañ koy natt ca loola ba xam dana ko jaarale ci yoonam déet ka dem ba yor responsabilité bu mag itam nag moo xam daa jiite xeet wala dafa jiite région wala dafa jiite dara moom itam li li yëpp loo ko fii ma ataakum dañ koy natt moom it ba xam loolee ci yoon la ko teg wala déet lii moo tax Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ni mi ngi bëgg a génn àdduna ñu jam ko mu tànn ñi nga xam ne ñoom la ñu tudde ahlu shura muy ahlul xall wal aqs muy ab lim ciw nit mu ne ñii su ma faatoo kuñ daje dëppoo ci moom ne kooka mën naa jiite jullit yi nañ ko tànn mu jiite jullit yi bi mu leen tànnee ba àggal tudd ci doomam bi ñuy wax abdullah ibn omar ibn xattaab abdurahman ibn awf ne ko da nga cee waroon a dugal abdullah ndax xëy na ñu baree ko ëppi at waaye abdullah ibn omar ci xam-xam ak ci xel mu jub ak ci yawute néew na ku mel ne moom bi ko abdurahman waxee loolu omar ibn xataab gàntu gàntu ne ko doy na waa kër xataab maanaam samay mbokk doy na leen am kenn ci seen biir koo xam ne ëllëg dañ koy taxawal di ko régler responsabilité bi xeetul islaam man doy naa waaye nag na yam foofu jëla ci keneen di ko ca tegaat mu ne déedéet kon abdullahi bu mu dugg ñetteel ba ci melokaan yooyu jullit yi yoroon ba taxoon ñu jaarale àdduna ci yoon moo di ne ñooñu jóguñu woon ngir taxawal nguur boo xam ne xéewlu moo ko taxoon a jóg ak joxe ay tiraanga waaye ay yan yëgoon nañ ne ay yan la kon yëgoon nañ ne maandute ma war a nekk ci kaw suuf yëgoon nañ ne doomu aadama yi nekk ci kaw suuf itam ñépp a yam kon dañoo ñëw ngir doomu aadama yi génn ci jaamu leneen lu dul yàlla waaye ñu nangoo jaamu yàlla moom dong xat-xati àdduna yi nga xam ne moom la ku nekkul ci diine di yëg mu bëgg loolu saafaraw ba ñépp dugg ci àdduna nag dugg ci diine nag yëg yaatu yaatu gi nga xam ne noonu la diine noonu la àdduna yaatoo jële leen ci tooñaange yu metti yi nga xam ne moom lañ leen doon yenn te àttu nañ ko indi leen ci maandu teg lislaam comme ñoom yëgoon xamoon nañ ne loolu moo leen tax a jóg moo taxoon xeet yépp yem ci ñoom amul ñi lañ ñi ñii lañ bokk wala ca ñee lañ bokk xamoon nañ ne ñépp ci aadama ci lañ jóge te aadama ci suuf lañ ko bind xamoon nañ ne ku gën fa nit ñi it mooy ku gën a tedd fa sunu borom tabaraka wa taala mooy ku ko gën a ragal gën ko nangu jàmm nangoo jaamu inna akramakum indallahi atqaakum kon ñoom melokaan wu mel noonu la ñu yoroon xamoon nañ ne ak wilaaya muy joxe ak pal gu mën a doon muy ndombal tànk xamoon nañ ne du tiraanga joo xam ne dañ naan bu ko joxee diw ñu ne ah kon de woowa askan moom teral na leen bu ko joxee ab dëkk ñu ne dëkk sangam jox na leen bu joxul ab dëkk ñu ne kon tiraanga ji joxu ci dëkk sàngam lu mel noonu boo ko déggee da ngay tiit da ngay tiit ndax ki jàpp ne loolu tiraanga la suñ ko falee ay ay bokkam daje ñuy tëgg ka sor xolle ñu ne dañ noo jox tiraanga loola la muy firi musiba la mooy responsabilité boobu ñu teg seen kaw yëgu ñu ne lii ab yan la su ko defee la jaaru muy bantub almet wërta teggi ci alal jooju jëm fenn fu dul ci loo xam ne luy jariñ askan wi la su boobaa dégg-dégg boobu day daal di suulu ñu jàpp ne kii kat tiraanga la moo ko askanam su ko defee la askan wa yeeyoo day teggi jëm feneen askan wa des ko nag di di doyadi di ñàkk di feebar duñ faju di dund ci ay jafe-jafe as kuréel su tuuti toog di dund dund koo xam ne soree na ak loolu lool loolu bokkul ak maandute gi nga xam ne moom la lislaam di woote noonu kon ci la jullit yi doon dund ba musiba mi wàcc ci seen kaw ni mu wàccee ci seen kaw ci ay jamono muy attewoo gi ñu doon attewoo sharia muy lislaam ñu sànni ko teg ko fële jël ay luwaa yoo xam ne ci yeneen réew la jóge yore ko di ko attewoo luwaa yooyee wuute ak lislaam lool nag ci bunt yoo xam ne yu bare bare bari la bokk na ci bunt yooyee buntu tànniin tànniinu njiit ndax lii nga xam ne moom lañ gis ci li ñu tuddee démocratie wax dëgg yàlla wóote na ak lislaam na mu tëre ndax ki war a wate ci ñoom kenn ku nekk ci yéen xam na ne képp dañ ne at sàngam rek ku ko am ku nekk mën ngaa wate kon borom at yu bari mën na caa dugg gone gu ndaw mën na caa dugg koo xam ne ba amagul benn expérience mën naa saa diw kartam borom xam-xam ba gën a kawe ci borom xam-xam yi bu ñëwee benn carte la am jaahil ja nga xam ne moo gën a doyadi ci doomu aadama yi bu dikkee wenn carte wutal ne wakkoo ko amoon moom la yore ñi nga xam ne boroomi xel lañ ay intellectuels yu mag a mag yoo xam ne xam nañ intérêt réew xam lu nekk buñ dikkee wenn carte lañ am ñoom it moom la ñuy sànni ku dese ka nga xam ne bu summi dàll bu génnee du xàmmee dàll yi dàll yi yan la ci moom kooku itam wenn carte la moom bu dikkee moom lay sànni loolu nag wute naag suuraa bi nga xam ne lislaam moom lay woote lislaam dafa wax ne kii tànn njiit na am mbooloo la waaye mbooloo moom mooy ahlul xalli wal aqd ahlul xalli wal aqd wala ahlul shura ab kuréel lañ ci biir jullit yi askan bu nekk ñamel noona ca biir askan woowa ñooñu la ñuy jël ñu doon ab kuréel su tànn njiit jotee ñoom ñoo koy tànn ñooñu ñooy ahlul xal wal aqd ñooñu nag ñoom ci seen jëmbi bopp bu ñu leen di tànn ci yii lañ leen di tànne ñoom xam-xam ak jëf ju baax ak ragal yàlla ak maandu ak yamale yamale ak sori lool nag lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu farfarloo moo xam farfarloo boobu day dellu ci kuréel moo xam kuréelu politique la wala kuréelu diine wala muy dellu ci farfarloo ay classe ñi ne ñii ñooy ñu féete kaw ñii ñooy ñi si digg bi ñii ñooy ñi gën a suufe déedéet ñoom xamuñu loolu wala ñi ne ñii ci askan wi lañ bokk ñee ci bee askan lañ bokk déedéet ahlul xal wala aqd loolu xamuñu ko ñii ca gox bee lañ dëkk ñii ca bee déedéet ñëpp a yem fa ñoom ñëpp ay jaam yàlla la ku ñuy jël ne kii jël nañ ko mu war a mën a jiite réew mi su boobaa day fekk bañ koy tànn yooyu yëpp xooluñu ci benn xooluñu ci wan askan la bokk xooluñu ci ban dëkk la dëkk xooluñu fan mooy goxam xooluñu ci ban parti la bokk xooluñu ci ban tarixa la bokk waaye dañ koy xool ngir ni kii liñ bëgg ci moom dana ko man muy taxawal njub ci kaw suuf ak maandu ci liñ ko dénk mu teg ko ci yoon ba noppi liggéeyal askan wi ci seen àdduna ji moom itam mu jëm kanam jamono ya nga xamee ne ñàkk nan loola nag maanaam li ñu tuddee ahlul xall wal aqd ñu ne na ñépp àndandoo di tànn foofa lam ñu jural mooy njaxas leen gis di nga xam ne fawda la muy anarchie boo xam ne yàlla moo xam fu mu fu mu tàmbalee moo xam itam fu mu yem fitna yi nga xam ne moom la ñuy jàkkaarloo xëccoo gi àgg ci lañ tabaxoon sax mën na yowal ba ci lakkaat ko ñay tànn seen bopp maanaam ñay candidat yi su fekkee dem na ba kay doon candidat ci xaalis képp la tegu kon ku nekk mën naa doon ci àdduna ab candidat ku nekk mën na ko doon kon loola du noona ñay tànn itam kenn ku nekk mën naa dugg ci biir kon loolu moo tax lor yu bare bari ñu koy gis tey da ngay dugg ci genn kër fekk ñoo xam ne ñoo bokk ndey bàyyi ñu xuloo ba duñ tuddante lu tax parce que kee fee la féete kee fee la féete kii kële la àndal kii kële la àndal ay sëy sax di tax ñaari way dencante yoo xam ne seeni sëy day tas ci kaw kon lañ war a tànn kii ne kee lay tànn kii ne kee lay tànn xuloo ba tàmbale ci loolu ba siy tas loolu su fekkoon ne lislaam na mu tërale moom la jullit yi di tëdde tey moom la ñuy doxale tey seeni mbir kon yu mel noonu yëpp danañ ko aaral seen bopp muy ay problème yoo xam ne ñu ngi koy dund ci wàllu social di ko dund ci seen wàllu économie di ko dund ci seen wàllu sax mën a am ak dal ci seeni réew loolu lépp la leen ko xañ mooy teg gi yoon wi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala tëddoo noonu rek nag la war a mën a demee itam ndax borom bi moo ne wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka koo xam ne li ma tër doon nga jullit ba noppi woon ko gannaaw nee na sa dund du mën a neex dund bu neex bi moom kon jërta séentu ànd ak loolu lépp nag mbokk jullit bi jullit bi lu xew lu nekk néewuñ ko ferenk ferenk laayu fas ci say loxo lépp lu xew lu nekk ak lu wàcc ci kawam ak lu metti metti borom bi tabaraka wa taala digal na ko benn na muñ ndax muñ ci jaamu yàlla yi la bokk ci li yëkkati ay daraja la bokk doy na rek nga xam ne inna allaha maa sabirin borom bi tabaraka wa taala dafa ànd ak muñkat yi ñaar na bari lu muy ñaan ñaanal sam réew sunu borom tabaraka wa taala saxal fi jàmm ñaanal sam réew itam sunu borom tabaraka wa taala ka koy jiite mu doon ka fa ka fa tane ka koy jiite mu doon ka fa tane loolu itam ci ñaan yi da cee war a dugg jii ma def sa képp kàttan nit nag ci lépp luy fitna nga suul ko mu bañ a jëm kaw bokk na ci nag suul fitna mooy jamono yoo xam ne yaa ngi jéem a tànn maanaam yaa ngi wote jéem a la góorgóorlu sa diggante ak sa xol ak sa diggante ak sa diine sa diggante ak sa ngëm yàlla nga jéem a tànn koo xam ne am nga yaakaar ci ne ay wi ci kii lay gën a néewee te yiw bi ci moom lay gën a bare tànn koo xam ne am nga yaakaar ci ne dana sàmm àq yi dana yemale doomu aadama yi ne ci réew mi du du farfarloo du gën a laaj dana jii ma def képp kàttanam ci kenn ku nekk àq ja nga yor mu jox la ko loolu nag masalam ittihaad la maanaam kenn ku ne da ngay jéem a góor góorlul sa bopp jéem a farlu ci loolu fexe ba koy sànnil aw carte na fekk melokaan yooyee na am ci moom am maa nag li ma dégg fan yi ay nit di ko wax ba sax am ku ma ko jot a jot li ñi wax ne am na ñuy yóbbu yóbbu fi béréb ñu wax ne ñàkkul ne am ndaje dafa amoon ci béréb bii fii nu nekk nii centre bi ay nit daje nañ fi ba dëppoo ci ne diw sàngam la ñuy wateel ma di leen yëgal ne loolu amut su fekkee am na fenn feneen la amee waaye fii amee fi fii amul ñenn nit ñu fi daje di waxtaane sax lu jëm ci loolu mosu fee amit nag ba mu fi taxawee ba léegi noonu ci suñ jëmmi bopp it bokk na ci ñoo xam ne am na ñu leen di déglu ñu di leen wax ne bu waxtu sàngam jotee dem leen wateel samba wala demba déedéet loolu moom du du suñ taxawaay saa bu demoon ba doon ko it su boobaa dana am fu mu tegu foo xam ne ci wàllu sharia su du doon lu ñuy yum yume wala ñu koy waxtaane ci ay roq lu ñuy déclaré mu leer naññi naññi lay doon wax itam ci yan argument la tegu ci wàllu sharia su boobaa ñëpp déggandoo ko benn yoon waaye du doon lu ñu recevoir doomu aadama ci ay roq di waxtaan ak moom wala ñu naan ko fii lañ jëm wala fële lañ jëm kon loolu ñëpp déggandoo ko benn yoon اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين